yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fanweereelu njàngale mi ak juróom ñaar yeesu faj na ay nit nanu bamtu nettali yi weesu benn lu tax farisiyen yi gëmoon ne soxlawuñu woon tuub nanguwuñu woon ne bàkkaarkat lañu yaakaaroon nañu ne ndegam Ibrahima moy seen maam te ñu ngi topp fukki ndigali yàlla yi dinañu mucc ñaar lu tax waa nasaret yi dàq yéesu génne ko dëkk ba gëmuñu woon ne mooy almasi bi ndaxte ci seen kanam la màgge ñett ndax simon xamoon na ne bàkkaarkat la waaw ndaxte wax na man bàkkaarkat la ñeent lu tax yéesu tànn fukki ak ñaar ñi mu def ay ndawam xamoon na li nekk ci seen xol te itam nangu woon nañu ne bàkkaarkat lañu te soxla nañu musalkat nangu woon nañu ko topp mu jàngal leen mbind mu sell mi nee na ci Mark saar ñaar aaya ñaar ba aaya fukk ñaar noonu nit ñu bare dajaloo fa ba kenn amatul foo taxaw du ci bunt bi sax te yeesu di leen yëgal kàddu gi noonu am ñu ko indil ku yaramam wépp làggi ñeenti nit jàppoo ko waaye ñu koo jege ndax mbooloo mi kon ñu daal teggi kawkar gi di bëtt fa tiim bërëb ba yeesu nekk daal di yor basang ga làggi ba tëdd bi yeesu gisee seen ngëm mu ne làggi ba sama waay baal nañu la say bàkkaar fekk ay xutbakat toog fa ñu di werante ci seen xel nan kii kan la ba sa a wax lii mu ngi sosal yàlla ana ko mën a baale bàkkaar yi ku dul yàlla dong waaye yeesu yëg ci xelam li ñuy werante ci seen biir ne leen lu tax ngeen di werante nii ci seen xel lan moo gën a yomb ma wax ku làgg ki baal nañu la say bàkkaar wala ma wax ko jógal jël sa basang tey dox waaye xam leen ne doomu nit ki am na ci àddina sañ-sañu baale bàkkaar yi ci kaw loolu mu ne làggi ba maa ngi la koy sant jógal jël sa basang te nga ñibbi te saasa mu jël basangam te génn fakanam ñëpp noonu ñëpp waaru di màggal yàlla naan lu mel ni lii musuñu koo gis bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yeesu faj na ay nit nettali bi mi ngi aju ci ni yeesu fajee ay nit yéesu doon na wër galile di jàngale ak di faj benn bës ku gaana ñëw ci yéesu mu ñaan yeesu ne soo ko bëggee mën nga maa wéral yéesu yërëm ko né ko bëgg naa ko wéral te saasa waaj a wér ñu teg ci ay fan yéesu di jàngale ci biir genn kër amoon na nit ñu bare ñuy déglu yéesu di wax kàddu yàlla ñeenti nit ñëw ànd ak ku lafañ waaye mënuñu woon dugg ci kër gi ndax nit ñu bare ñu bëtt kaw xadd ba teg lafañ ba ci basaŋ yoor ko mu wàcc ca digg mbooloo ma bi yeesu gisee seen ngëm mu ne lafañ ba sama way bal nañu la say bàkkaar ay xutbakat a nga toogoon ca nit ña ñuy wax ci seen xel lu tax nit ki sañ a wax lii mu ngi sosal yàlla yàlla rek moo mën a baale bàkkaar yéesu xamoon na li nekkoon ci seen xel noonu mu laaj leen lan moo gën a yomb ci diggante baale bàkkaar ak faj nit noonu yéesu doxloo lafañ ba ngir won leen dooleem nit ñi waaru te màggal yàlla mësuñu woon gis kéemaan gu tollu noonu lu mooy bésub keroog beneen yoon yéesu ak taalibeem tase woon nañu ak ku gumba ci biir yerusalem taalibe yi laaj yeesu ne ko waa ji dafa judduwaale gumba lan moo ko tax a gumba bàkkaaram wala bàkkaari waajuram yeesu ne leen du ay bàkkaaram te duyu waajuram waaye yàlla moo bëgg a wone dooleem jaarale ko ci moom noonu yéesu tëfli ci suuf jaxase ko mu jël suuf si tey ko ci bëti gumba gi yéesu ne ko demal sëlmu ji ci ndoxu silowe waaju dem def li ko yeesu sant noonu mu tàmbalee gis da ko waaru bi ñu ko gisee muy gis ñu laaj ko naka la def bay gis mu nettali leen ni ko yéesu faje gannaaw loolu farisiyen yi ñëw seetsi ko farisiyen yi ne yeesu mënula jóge ci yàlla ndaxte faj na ci bësu noflaay bi bésu noflaay bi ngir noppalu la woon tere woon nañu lu bari ci bës bi lu mel ni liggéey wala tukki ak yeneen ak yeneen waaye ay nit naan nakal ab bàkkaarkat mën a defee kéemaan gu toll nii bi ñu laajee waa ji gumba woon ci mbirum yeesu mu ne leen ab yonent la gannaaw loolu pharisiens yi laaj ay waajuram naka la seen doom wéree bay gis léegi waajur yi dañoo ragaloon farisiyen yi dàq leen génne leen jàngu bi bu ñu nee yéesu mooy almasi bi kon ñu ne xamuñu kan moo ko faj laaj leen ko magum jëmm la farisiyen yi ne waa ji yàlla rek nga war a màggal ndaxte xam nañu ne kii bàkkaarkat la waa ne man xamuma ndax bàkkaarkat la wala déet waaye xam naa ne gumba laa woon te léegi maa ngi gis yàlla du dégg ñaanu bàkkaarkat yàlla ñi koy màggal rek lay dégg mu teg ci ne su nit ki jógewul woon ci yàlla du mën a def dara farisiyen yi mer lool ba dàq waa ji génne ko ci jàngu bi gannaaw gi yéesu gis waa ji mu laaj ko ndax gëm nga doomu yàlla ji waa ji laaj ko kan la yéesu tontu ko gis nga ko ba noppi te mooy wax ak yow waaj ne borom bi gëm naa yeesu faj na nit ñu bare ci jàngoro yu nekk yàgg na bu yonent yàlla esaayi waxee ci mbiru liggéeyu musalkat bi noonu gumba yi di gis tax yi di dégg lafañ di tëbantu ni kéwal te làmmiñu lu tel ak mbeg fii la yem am na ay laaj benn naka la yeesu faje ku yéesu dafa ko yërëm ne ko bëgg naa ko wéral ñaar lu yéesu wax lafañ ba ñu yooroon ca kaw xaddu kër ga sama waay baal nañu la say bàkkaar ñett lu tax loolu merloo xutbakat ya xamoon nañu ne yàlla rek a mën a baale ay bàkkaar kon xalaatoon nañu ne yéesu bakkaar na ñeent yéesu xamoon na li xutbakat ya doon xalaat lan la leen tontu lan moo gën a yomb ci diggante baale bàkkaar ak faj nit juróom lan la yeesu def ngir firndeel ne am na sañsañu sañu baale ak faj nit ñi itam yéesu dafa faj lafañ ba juróom benn ndax yeesu amoon na sañsañu sañu baale waaw mooy ki yàlla dige di ki ñëw ngir musal nit nii ci seeni bàkkaar juróom ñaar ndax bakar moo tax waa ji judduwaale ngumba déedéet waa ji judduwaale na ngumba ngir doole yàlla feeñ juróom-ñett bi farisiyen yi waxaatee ak ki gumba woon lu leen waa ji wax dafa ne mu ngi gisaat teg ci ne su nit ki jogewul woon ci yàlla du mën a def dara juróom-ñeent bi yeesu ne waa ji mooy doomu yàlla ji ki yàlla dige lan la waa ji def waa ji dafa ne borom bi gëm naa fuk naka la ñuy xamee ne yeesu yëg na tawatu nit ñi fajal na leen seen jàngoro yépp fukk benn ndax nit ñi yeesu faj gëmoon nañu ne mën na ko def waaw nit ki gaana woon xamoon na ne yeesu mën na ko faj gumba gi def na di ko yéesu sant lafañ bi ak xaritam wane nañu seen ngëm ba ñu bëttee kaw kër ga ngir gis yéesu fukk ñaar ndax fariseen yi bëggoon nañu bi yéesu faje nit ñi déedéet topp yoon wi moo ëppoon solo ci ñoom yan melukaani yàlla lañu gis ci lettre bi ak naka lañu ci feeñe gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yéesu faj na nit ñi ci yërmandeem yàlla xam na lépp yéesu xamoon na ne waa ji gumawul ndax ay baakaaram waaye ngir feeñal ndamu yàlla yéesu xamoon na li pharisien yi doon xalaat bi mu naan lafañ bi baal nañu la say bàkkaar yàlla mooy boroom doole yéesu faj na jàngoro yu bare yéesu baal na lafañ bi ay beneen yoon dinañu waxtaan ci mbirum njàngale yeesu